nag moom dañu jël bés bi ndax dañ ko daan tàmm di def feet bu mag ci suuf waaye nag comme daf ndigal dafa jib te bu ndigal jibee rek appliqué moo war te ndigal bi jib jibul nag ci bànneex dafa jib ci prévention rek ndax dafa am benn feebar bu xaw am jàngoro ji xew ñu daal di ne léegi nag nañu ko faf bàyyi daal di dajale jigéen ñi woo suñu docteur d'entreprise mu ñëw waxtaanul ñu ci feebar bi précaution yi ñu war a jël naka lañ koy jëlee nuñ koy defee ak nag yooyu yëpp nag daal ñu daal di woo jigéen ñi mu wax ñu ko leeral na suñu bopp ubbi na ko tey ci bari ci waxtaan wi ba nga xam ne alhamdulilah rabbil alamina yaakaar naa ne ñun way waa poste bu ñu jógee fii précaution yi dinañ ko jël bu baax incha allah. ni docteur wax nag ah jëfe ko rek la ñu def ndax sensibiliser nañu ci corona bi sensibiliser nañu tamit ci cancer du col de l'utérus vraiment ñun dañuy def kontaan ndax du ñu amee docteur ci suñu entreprise ñu soxla lu mel ni am ñu ko mu ñëw. waxtaanal ñu ah, jigéen ñëpp yóbbaale ñun dañ ciy kontaan te duñu def lu dul jëfe li nga xam ne moom la ñu wax conseil yi ñu taxaw ci bu baax jëfe ko nañ jël précaution bi di raxas suñu loxo yi bu baax ni mu ko waxee moytu euh, euh, sëqat beeg yooyu yëpp daal vraiment daal ñu jël ak ah, ñu jël ci précaution yi taxaw ci feebar bi yàlla mën naa def ne yaakaar naa fii du fi taxawaalu daal mesure précaution yi li nga xam ne moom lañu am tey actuellement jumtukaay yi ñu gën am mooy set bi set bi nag buñ ko tuddee ci sa bopp la commencé balaa muy def li la wër donc il faut que nu ñu changer comportement yi par rapport ak loolu précaution yi Sénégal dañu tàmmante nuyoo bi bu ñu jàmm sante foog ñu joxe loxo loolu tamit il faut ñu ko xool nu ñu koy wàññee par rapport ak feebar bi raxas lay loxo raxas yi tamit waxuñu mu nekk loo xam ne ne da nga koy def mu dem il faudra que nga insister ci raxas bu baax a baax man maanaam même bu doon def ay ay ay fanweeri seconde moo moo gën nga raxas sa loxo bomb ruq yëpp loolu dina ci baax éviter contact yi maanaam ni ngay jege kuy sëqat wala kuy tisool yi nga am espace su un mètre ak moom par rapport ak loolu donc yooyu laal lañu doon wax pour tënk leen ko ñaax leen ko pour xool nuñ ci nuñ ciy jóge